yàlla maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuubaa ñoñam ñaati murit bi ngal xerewlul maa ngi lay waxati ku tax nga yéemaat sëriñ Tuubaa ak ñoñam ñaati du man di tey ci wax leen gaa yi ya ndax ñoo ñaama doy ñooy samay roy teef fi tuubaati auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi seetaan seen site inter istiqaama ñi leen nuyu baax baax di leen siyaare mu mel ne tey jii ñi ngi doon amal benn siyaare général bu mag ci kanamu sëriñ Abdou Khadir xalifu sëriñ Daaron Sagne ñu gis ne mbooloo mu takkoo takkoo takku teew na fi ci ay góor ak jigéen ñu bàyyikoo ci ay gox yu fasantikoo ñëw ci kanamu sëriñ Abdou Khadir mu mel ne ñi ngi jàkkaarloog sëriñ Maam Daam jiite relation extérieure ci bureau fédération bi sëñ Maam Dame euh, bu ñu la bu nuyoo siyaar lu baax a baax ndax euh, man nga ñoo wax yenn ci kàddu yi nga xam si dégg nga ko sëriñ bi mu mu mu mu yëkkati ko fii mu jëm ci mbokki taalibe yi ak itam ban fàttali moom nga ñu ma defal ci ndaje mu am solo fan génn nañ ko léegi. Euh, jërëjëf sëriñ Moustapha jërëjëf sunu mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki Istikhama muy site internet Istikhama te mu doon. jumtukaayu sëriñ Touba ngir liggéeyal sëriñ bi ci taxawaayu yaatu ndax jamono moo toll foo xam ne lépp loo xam ne bëgg nga mu des si ci yu mel nii ci lañ koy dégloo muy site internet yi kon ñu ngi leen sant bu baax a baax mbokk yi ñi nga xam ne ñooy liggéey ca jotaay boobu. Serigne Moustapha kaddu yi nga wax dafa am solo lool muy laaj yi mu jëm ci nan laa jàngatee bis bii nga xam ne mooy bis bu siyaare bii dañ koy waajalee màggaluk sëriñ Darou Assane bis bi nag liñ ci njëkk a jàngatee rek mooy gis nañ ne bàyyi xel gi nga xam ne njabootu sëriñ daru Assane bàyyi xel nañ jataay yu mel nii ndax du jataay yii rek la njaboot gi daje waaye gis nañ ne tey jii ci wàccaayu siyaare bi mbooloo mi wàcc nañ ko bu baax a baax waaye bi ñu agsee tamit ci siyaare bi gis nañ ne mbooloo mi teel nañoo ñëw muy góor ak jigéen loolu nag liñ ci jàngatee mooy dafa mel ne li comme li sëriñ bi waxoon rek ndaw ñi dañoo fëx jëm ci Serigne daru Assane te loolu nag yaakaaru na lool te mooy ndimbalul kenn ku ne ci ñun ci ku mën a doon kon gis nañ ne daal bëgg gi nga xam ne wane nañ ne bëgg nañ liggéey bi kon dañ ciy sant bu baax a baax jàngat bi nga xam ne nag moom la ñu am ba tey ci mbooloo mi nga xam ne ñoo fi teew euh, tudd nañ ko mu toll ci ñaari junni nit tudd nañ ko mu toll ci ñaari junni nit nga xam ne teew na fi loolu wax dëgg yàlla Euh, ci siyaare boo xam ne moom la ñu waajalee siyaar euh, màggaluk Serigne Darou Assane gi nekk na jataay bu bu am solo boo xam ne jataay la ngir bareli na bari na wala war nañ koo bari lool. jataay siyaare bi nag mbooloo mu takku mi dafay gën a firndeel ne njabootuk Serigne Darou Assane bennoo gi nga xam ne def nañ ko. ba ñëpp di leen ci bëgg euh, bëgg roy wala ñëpp roy leen ci ngir benno gi nga xam ne ñoom def nañ ko kon loolu jàngat bi nga xam ne moom lañ njëkk a def boobu jàngat bi ñuy defaat nag muy kaddu yi nga xam ne moo bàyyikoo ci ñi nga xam ne ñoo jël kaddu bi ci njëkk nekk secretaire sénéral bi njëriñul kaddu secretaire sénéral mooy leeral jataayu mbooloo mi ak ñi nga xam ne ñoo teewee jataay bi ak ñi nga xam ne ñoo leen yabal muy ay délégation ñu ñëw teew ndax kër Serigne Darou assan dafa séddalikoo ci biir réew mi ak ci bitim réew moom nag mu doon jàllale kaddu yooyu wax ne maanaam teewaay ñi nga xam ne ñoo fi teew kon mel na ne képp koo xam ne déggoon nga kàddoom rek mel na ne li nga soxla woon a dégg dégg nga ko ci jataay boobu ñi ngi sant sëñ Abdourahmane Dieng bu baax a baax waaye kaddu gi nga xam ne moo ci topp muy Baye Mbaye Roqaya doon jàllale kaddu ñi nga xam ne dañoo tukki jàngat biñ ciy def rek mooy képp koo xam ne génn nga nekk bitim réew yëg nga ne maanaam bis bi teew nga ko tan li tax mooy tey jii wala balaa suba da nga fanaanoog jataay bii mu fekk la fa nga nekk kon loolu lu am solo la kon kaddu Baye Mbaye Roq googu noonu mu jëm ci euh, bàyyiloo xel gi nga xam ne bitim réew ñi ngi koy bàyyiloo xel kër gi waaye kaddu gi nga xam ne tamit mooy kaddu sëñ Abdou euh, sëñ Abdou Ndiaye wilaaya wax ko tamit mu résumé li nga xam ne mooy kaddu yooyu muy kaddu Baye Gora gi dégg nañ ci ne njaboot gépp muy ci biir réew mi ak ci bitim réew yëg nañ taxawaay bi nga xam ne moom lañu war a taxaw te loolu rek moo ci am solo muy ñi ngi dajee ñi ngi waxtaan ñi ngi dem ci xew yi ñi ngi dem lente sunu biir te lool mooy jataay bi liñ ci bëgg ndax moo tax ñu sabablu def magal gi muy benn kon mbooloo mi dañoo war a doon benn waaye loolu am na solo lool xam naa li ma ciy jeexalee rek samay kàddu mooy di xamal mbokk yi nga xam ne ñooy seetaan lu am solo te njabootu sëñ Darou Assane di ko def ndax mbooleem bu nu àggee ci màggal gi mbooleem kër goo xam ne yaa ngi ci biir kër sëñ Darou Assane da ngay teg sëb ci euh, nga xam ne mooy sa biir kër sol benn tëni bi rek muy tëni bu bula bi loolu nag mooy waral ne benn gi nga xam ne njabootu sëñ Darou Assane benn ko kon loolu rek ñu ngi leen ko bàyyi xamloo baax a baax waaye kàddu sëriñ bi nga xam ne nag ci lañ jeexalee mooy dégg nañ ko mooy ñaax na wala sant na ñi nga xam ne ay rakki sëriñ bi lañ sant na leen bu baax a baax te loolu maanaam kilifteef gu am solo la ci ñi nga xam ne ay ay ay ay lañ wala ay ay taxawaayam lañ teñ jàppale ko ci li nga xam ne mooy taxawaayam bii kon sëriñ Abdou Khadir ñu ngi koy sant bu baax a baax waaye sant na tamit ay doomam képp bàyyiwut kenn sant na tamit ay taalibeem sant na góor ñi sant na jigéen ñi kon kenn ku ne jaar na ci ca moo xam góor ñi la wala jigéen ñi sant na ci bu baax a baax kon loolu daal liñ ciy jàngatee mooy bis bii di bisub siyaare bii nii firneel na ne njabootu sëñ Darou Assane benn lañ kon ñëpp képp koo xam ne kaddu gi wala yaa ngi seetaan li nga xam ne mooy siyaare bii na nga xam ne njaboot gi benn lañ ñoo bokk li ñuy li ñu bëgg ñoo bokk li ñuy bañ kon képp koo ci wéetoo rek na nga xam ne loo ko wax wax nga ko ñëpp ndax benn lañ ndax sëriñ daro Assane li ko suñu sëriñ li ko suñu borom defal mooy ay taalibeem ak ak sëriñ si ñoo bokk benn deret ndax sëriñ si euh, akub taalibeem sa taalibe dana doon sa nijaay sa taali bi dana doon sa jarbaat sa taali bi dana doon sëb sët kon loolu taw feex googu noonu moo tax siyaare bi ñu jàngatee ko mu am solo lool kon dañuy sant rek ci kàddug Serigne Moustapha googu noonu nga xam ne laaj nañu ko muy jàngat boo xam ne jàngatub seddu xol la sunu xol sedd na ci lool waaye wane waat na kër sëñ Darou Assane waaye nag sunu xel gën naa dal ñu ñi nga xam ne njabootu sëñ Darou Assane lañ muy taalibe yi ñoo ngi ci am mbégte loolu ci siyaarab tey bi di ñaan yàlla nañ ko sunu borom gën a doolee taxawu bi barakati Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tañ egg ca bis ba ak jàmm te lépp lu ñu sumb ñu daan ko te yàlla bu nu kenn seen ci lenn loo xam ne doonu noonu si maam na xam naa laaj bu mujj bi rek ah, dégg nañ ci kàddu sëñ Ibrahima jëmm ah, mu wax ci turu sëriñ Abdou Khadir mu soññee ci daara chronique Serigne Darou Assane mi daara ji nga xam si ne ñu ngi koy tabax depuis daaw ba ren mu def soññ am solo bi mu jeexalee sëñ Abdou Khadre moom wax na ne lam soso woon daaw fas na ko yéenee de defar ren ji kon ban message moom ngay lancé ñi nga xam si nii ne ñoo ne ci diaspora bi ak ñi nga xam si ne ñoo ne ci biir euh, réew mi ak fu nekk rek ci kàddu sëñ Abdou Khadre yooyu naka moom lañ ko mën a bàyyee xel. jërëjëf sëñ Moustapha ci soññe bi nga xam ne rek sëriñ bi soññe na ko jëmale ko ci daara ji. ndax euh, sëriñ bi muy sëriñ Darou Assane kenn ku ne xam na ne alxuraan rek moo ko ñoroon te kenn ku ne xam na ne njabootu sëñ Darou Assane ci fépp fun leen masawoo wuy ji nañ fa waaye nag taxawaay bi nga xam ne moom la njabootu sëñ Darou Assane engagé wu di ko def mooy daara ji nga xam ne moom lañ taxawal fële ca kër sëñ Darou Assane te mu sori lool sëriñ bi soññee ci nag wax ne képp koo xam ne bokk nga ci njabootu sëñ Darou Assane na daara ji na doon sa lépp na doon sa lépp googu nag dafa firndeel moom mi nga xam ne mooy jëwriñ ji mu jël léppam def ci ba wax ne la mu la mu la mu ca engagé wu woon la mu ca engagé woon engagement boobu noonu la mu waxoon daaw dana ko def dana ko defar ren kon nag li may ñaax sama sama morom yi ak taalibe yi mooy bu ñu sëñ bi raw te bu ñu sëriñ bi gën a bëgg liñ lim li lim digle kon lañ war a def rek mooy ndigal li dégg nañ ko muy ndigalul daara ji lépp luñ mën a am nañ ko miraas def ko ci suñu bopp taxawal daara ji ndax daara ji rek du du du tax du sumb boo xam ne euh, sëriñ bi da koo sumb mooy daara ji daayire bi ak gën a dajale njaboot gi kon daal nañu gën a taxaw ci daara ji ni ko sëriñ bi soññee fexe ba kenn ko ne su delloo na xam ne li commencé tey jii nii bu fanaanee leneen lu mu ca toftalaat rek dërëm bu mu ca mën a am na ko def jaarale ko ca jëwriñam mu jëm ca daara ja kon daal sëñ Moustapha liñ doon wax rek mooy soññi képp koo xam ne euh, bokk na ci njabootu sëñ Darou Assane rek mu dégg ndigalul sëñ bi te jëfe ko waaye nag sëñ bi joxeñ bi mu joxe nag nañu fexe ba tey jii balaa kenn tëdd cib lal nga fekk ji sëriñ bi ci joxeñ bi mu joxeñ ngir euh, euh, sumb ci biir daara ji. jërëjëf sëñ maam daam kon kàddu yi am na solo trop